gërëm naa leen sant naa. jërëjëf Mame euh, définition hépatite B nag niñ koy mën a définir c'est l'inflammation du foie maanaam foie bi nga xam ni dafa am infection dafa am virus loolu mooy définition hépatite B hépatite B nag virus la virus la bi nga xam ni dafay dugg ci organisme doomu aadama di ko yàq comme niñ ko waxee mën na laal foie bi mën na laal cœur bi mën na laal roño bi mën na laal bile bi mën na laal pancréas bi kon hépatite B bu ko nit amee rek na jàpp ni moom mooy ndayu cancer ndax hépatite bokk na ci luy jur cancer waxuñu nag képp ku am cancer ci hépatite B la jóge mais mën nañu wax ni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 kontaan naa si yow lool lool lool lool kontaan naa si yow bu amul àpp yal na la yàlla jàppale yal na ni suñu borom yal na fi yàgg lool lool bu ànd ak wér ànd ak mujj bu rafet waaye amul lu ma dajul ci àdduna amul lu ma dajut fune dem naa fa fu ne dem naa fa tee rek nag tee wér rek nag waaw fu ne dem naa fa jërëjëf Sine Balla kontaan naa bi ma la gisee rek sama xol bi dafa sedd li jóge ci yow li jóge sama xol bii mënuma la koo wax kontaan ci sama xol sama xol dafa bëgg ci yow. Sine Bara macha allah macha allah kontaan na bu baax ngeen du jàmm ak salaam jërëjëf. jërëjëf maam waaw hépatite B moom.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 dafa am virusu hépatite B ñu xool ci yan anam ak forme yi ñu mën a jaar pour ñu mën ko jàppale ba wàllu feebaram boobu mën a tàggoo ak moom ci kattanu yàlla ak baaxam ak yërmandeem salaamaaleykum wa rahmatullah tonton Lamine Bara Fall maa ngi lay nuyu di la ziar di la nuyu lu bëree bëri rek di la balu àq di lay sa jàmm ak sa jàmm yaram ah di rafetlu rek di nu seqan wax dëgg yàlla gis naa ji ay ngëneel yu bare bari yu xewale di sàkkuwaat nga ñu rek fasaaleel ñu wér-gu-yaram ñu ngi koy sàkku ginnaaw bu yàlla jàllee kontaan naa trop wax dëgg yàlla yi ma defalan daal gis naa ci changement yal na yàlla yokk rek yal na yàlla yokk xéewal yàggal ci sun kanam ñu nit ñu yàgg ci sa kanam yàgg laa di sun soxla nga dinu ko fajal ginaaw bu yàlla jàllee dëgg yàlla kontaan nan waa kay jërëjëf nekkal si jaamu doon doon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 laaj yëpp nga laaj ma ko man lu ma la war laaj ci sa yaram ma laaj la ko ñu poser une bonne diagnostic xool bu baax dëgg-dëgg li nekk sa yaram yëpp xool yan feebar nga àndal yan feebar moo nekk ci yow lan nga bëgg lan nga bañ sa yaram lan la supporter lan la attan loolu mooy li nga xamante ni moom la fajkat bëgg ñuy profité di ko ñaan képp kuy dem ci fajkat bu mu munti doon ci wolof wala ci tubaab bu mu munti doon dañuy bëgg malade yëpp di def consultation loolu a ko yor. en fait man feebar bi mi ngi ma dal euh, depuis 2007 boobu maa ngi Italie Euh, mu metti won lol ci man nak jaaxle won na tamit ndax euh, fu ne dugg fa dépenser na tamit xaalis bu dul jeex euh, ma am sama ben xarit bu baax bu nekkoon fi Sénégal wo ma téléphone expliquer won man ni ma amna ko ko fi mën a faj bi ma ko waxee nag bon gëw ma ko quoi parce que bo feebaree xam nga nga jaar fu nekk sonn mais bima ñëwé fi Sénégal la xam ni lépp daal dëgg la quoi ndax ci lañ ma bolé ak ben waju baax bi ñu wax Serigne Modou Lamine Bara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 contamination directe nak bo len ko déggee moy contamination bi nga xamante nit ki dafa am virus hépatite B mais li ko indil moy dafa sey sans protection spermatozoïde bi bu fekkee dafa infecté manam dafa am virus yalla da fay dogal virus bobu da fay nek li nga xamante ni dafay wàllante ci sen biir ku gor ki mën nako na ko jigen ku jigen mën nako mën ko gor amna itim nak benen mode bi nga xamante ni mooy ni koy walanté moy ci walu deret moy ñaari deret yu jaxaso ben deret bu infecté ak ben deret bi nga xamante ni bu sain la bi xamante ni dara dalu ko deret bu échangeante rek mën na nekk li nga xamante itim luy mën a indi hépatite B la du ñu ci ñëpp ndax nit ñi li wax rek ay ndëgër laay yaram nit anatomie ñi ëpp contact direct avec le sang mais am na ci nga xamante ni tamit wàllante nañ ko te tayuñu ko ñu mel ne docteurs yi dafa leen di dal dañuy am patient di faj ba deretu patient bi laal leen te fekk deret la bi nga xamante ni dafa am infection virus am na ci nga xamante ni muy suñu mbokk coiffeurs yi bari na ñum ci dal suñu mbokk yi xamante ni itam demoon nañu armée ndax nañu dundee ci camp yi ak contact yi ñu am ak seen formation bango yi yëre yi ñuy solante wateef yi ñuy warante yooyu yëpp dafa nekk ay yi nga xamante ni luy wàllante direct la bari nañ trop dans l'armée ñi nga xamante ni yàlla may nañu ñu jooj ñu ñu ñu lëkkaloonte ak ñoom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 am ñoo dafa am progression bu rapide bu vif bi nga day dugg rek def comme li ma wax sànq toll nit ñi tollaw ñu ay physionomie tollaw ñu ay anatomie nit ñi yemuñu nit ku nekk ak ni la suñu borom ñenn ñi def leen bind globule blanc ak seen globule rouge virus bu dugg ci yaram automatiquement seen yaram dana ko dana ko identifier dina ko reconnaître dina ko combattre combattre sax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 ci par routine non rek la ko nako la ko trouver hein ah. mu nekkoon nak affaire bu buma buma, ma handicapé quoi. mais gis nga bima ma ci yow nga jox may garab ma dem wat ko muy deuxième fois fois dama ñëw def analyse zéro lepp dañ lepp dañ set wecc médecin bi nga xamni moma moo doon suivre muy hépatologue bi dafa ni ma mais comment ça s'est fait que affaire bi da koo jaaxal quoi mané ko nak euh, yow xamna do xam waye man xamna naa nak ma ci sant bu baax.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 kon bul dool yërmande ci gaañi rek di leen ñaanal waaw ku la tawat yitte boo nga xam ni mën nga koo ñaanal ba mu faju defal ko ko te jëmmi sëriñ bi tax te xam ne ak yokkute rek nga ci am waaw jërëjëf sëñ Baara bég naa trop bég naa trop barke sëriñ Saliou waaw te seere lu ma ko kudul sëriñ bi bég naa trop te séeré lu ma ko kudul sëriñ bi waaw maa ngi lay ñaanal nag yàlla na nga fi yàgg yàlla na la sëriñ bi guddal sa fan wéral say cër yokk say xéwal ba dootul yem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 te hepatite B nekkul dara dara dara dara dara feebar bu ndaw te cancer it ku ko mën a déggit xam ni allah nekk na feebar bu graw feebar bu doy waar. bismillah alaaji baara dégg naa say mbir bu baax a baax a baax li ngay def leer na li ngay wax leer na ñun moom ñun bi murit yi moom yaakaaruñu kenn ku dul Sëñ Tuubaa ak Seex moom moom laa lay bàyyeel moom mi nga xam ne moom moom man nag ci sama jëmu bopp que sa mbir leer na ndaxte bi nga. feeñalee ku sa ngëm-ngëm ci yàlla ak ci yonante ndax ndaxte kii wax jiital ku suñu borom ak ah, yonante bi kooku am defe naa ragal na suñu borom ragal boo xam ne nii lu muy def yëpp mu ngi ci xool ku suñu borom ak yonante bi ndaxte ku dee yaa <laughs> ko sa bàmmeel la te xool nga sa diggante ak <laughs> sa bàmmeel ak sa njaboot bi nga xam ne moom ngay bàyyi ginnaaw Manit, ko koy yalla la lay lay bayel ak seigne touba ak Cheikh ndax te ñun mom la yaakar fi te te moom la ñu yaakaar kon nak li ngay wax leer na ci ci barke borom touba waaw mode de prévention yi mom mamran moytu rek moytu moytu moy moytu lu koy indi comme nima ko waxe sank moytu bepp deret bu bokul ci nit nit ku nek na nga moytu bepp deret bu bokul ci yow bul am ak mom ben contact bu mu jaxaso sa deret parce que mën na la walu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 bo jàpp sama biir feebar bi nag wax dëgg yàlla dem naa fu ne docteur bu ne dem naa fa ñu def ay analyse ñu ne ma gis ñu dara waaye yàlla dimbali ma may suivre toujours télévision yi borom xam-xam yi yàlla xam na ne nag borom xam-xam yu bari dem naa ci ñoom dem ci tubaab yi ba sonn ñu bindal ma ay garab ba sonn def analyse bu nekk gis ñu dara dem nit ci boroom xam-xam yu bari waaye bi ma yàlla booleeg Serigne la Bara mii ba dama dem fa wax dëgg yàlla mu commencé ma ay traitement vraiment ci diir bu gàtt rek laa tàggoog loolu te yàlla xam ne lu ma lekk daawul rees daan tiit sax pour dama daan ragal sax lekk ndax ma lekkaan rek am problème tëdd bu guddee ma tëddee ma daan fat gudd gu ne dama naan est-ce du ma faat ma jàkkoon wax dëgg yàlla yàlla ak sëriñ Baara mii moo tax ma tàggoog loolu wax dëgg yàlla du loo xam ne traitement jël temps la ci man ah. dama daan dem ñu may jox reen ak i garab may naan ba sonn dara waaye wax dëgg yàlla ci kàttanu yàlla daal moom mii moom ma faj waa ah. fajal ma yeneen sax wax dëgg yàlla loo xam ne waxuma ko woon ndax nit ku nekk boo amee jàngoro li la gën a sonal rek ngay gis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 wa sa garab yi da moom solo torop torop torop vraiment bima koy commencer di jël ak légui dal wax deug yalla ma ngi sentir ne lu am solo la wax deug yalla contane nañ ci yow torop sëñ bara ñi ngi contane ci yow dila gëna gën suñu bop dal jërëjëf sëñ Baara. am ci xamanteni xamante ci biir traitement bi dañ lay jox ba jox la euh, effet secondaire yi nga xamanteni ni la hépatite B di def ni sa bop di metté sa bëdi di lëndëm sa fit bi di tëf tëfi ni bëdi di xonxé japp mbagg yi Digli, Tanki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 kilifa laa damay ñaan ci loolu mu yëngu laa yëngu waaye dafa am loo xam ne su ko nit waxee rek sa xol dina tooy wala sa yaram ndaw moom sax laa ndax bu fekkee danaa seere ci moom ay jikko may def ay témoignage alxuraan nee na wa maa naa ilaa bimaa xallim naa doomu aadama bi du wax lu mu xamul waaye biir na ma ne moom ab taalibe la te ku bëgg sëriñ Tuubaa la te ku am pëstëf la itam ci liggéeyam ku yàlla may la te ku yàlla baaxe la te ku xam dara la muy borom xam-xam boo xam ne bu ñàkk ci yàlla boo xamantene ni nii tax doomu soxla dafa fiir doomu aadama xam-xamam bi muy yëngutoo bis bu demee bu yëkkati ko ba jox la surtout muy di gën a lu ñëpp ñàkk da ngaa war a jàpp ne kooku kon ku baax la bi mbirum faj ak waxtaanu xam-xam dootu naa dañu leen di ci wax sànq waaye Sëriñ Tuubaa dafa am lu mu ci wax daf ne yaa isal jigaami laa tastaqilu anil hudaa wa bin ulluumi tastaqilu bil assi wa tilaawa mu ne ñun ndaw ñi nañ fexe fàkku xam-xam ba noppi ànd ak lu jub ba tànn bu majaan ci saxaaw te ñu néeru jotaay way fexe bi mu ne kon bu ñu ko defee fa ku lu mën baadara waxtaan ci xari dinaa daaw wis ci raax waxtaan ci bëri moo ñuy téel sax mag yàlla moo lay téel sax mag boo demee ba retraité incha allah suñu borom dana a taxawu te ñaan moom fa stajaaba lahum rabbuhum suñu borom nee na dinaa wuy si ñu may woo mu dellu ne adduuni astajib lakum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 169 45 45. maa ngi lay nuyu di la bëgg di la ñaanal gudd fan ak wér gu yaram ak mujj bu rafet nga yàgg fi lool lool lool ànd ak wér ak wérle ak mucc mucc le waa nga yokkal ñu ñaan rek ñu yokkal ñaan rek nga yàgg fi lool di ñu faj ñuy wér jërëjëf seen bi fay la jërëjëf seen bi fay la seen bi fay la sa xam-xam ak sa coono dëgg yàlla sonn nga si ñun lool lool lool doomu aadama yëpp sonn nga si ñoom ñu def lu baax di ko wax. macha allah merci ngeen du jàmm jam, du jàmm faral njaga yaaram jërëjëf seen baara jërëjëf Jadi dégg naa la de. tey jii nag ñu fas yéene lenn ci li nga xamante lu sonal askan wi la muy feebaru B. ñu bari ci askan bi loolu daf leen sonal lool rawatina nak ñi nga xamante ni dañuy nekk jigéenu wérul dem di may deret ñu wax leen dañu am hépatite B.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 man dama noonu laa mel ginnaaw ginnaaw tey gën naa la wóolu maa ngi lay ñaanal yow tamit yàlla yokk sa xam-xam dëggal sa taxawaay defal la najaax si barke Muhammad Rasulullah ah yàlla boole na ñoom yàlla na yàlla teg si yoonu siraatal mustaqiim du ñu ñaan ñëpp nekk ay mbokk. moom daal suma xol fees na daal kontaan naa si yow waaw gëm naa la yaakaar naa la te maa ngi ñaan yàlla yàlla. jërëjëf Serigne Lamine Mouhamadou Lamine Bara jërëjëf jërëjëf. jërëjëf macha allah kontaan naa si eh, accueil bi kontaan naa ci consultation bi kontaan naa ci lépp rek parce que gis naa ne yow da ngay dem ak abnégation da nga fonk ki nga xamante ne sa manaat la macha allah sabal xalaxi na macha allah yal na yàlla yàggal la fi te yal na yàlla defal la si faaw yal na yàlla defal la si faaw koo faj rek yàlla na wér incha allah taala incha allah loolu lay seetee. xam nga nit ki boo jëlee. <clears throat> métier faj nga ne da ngay faj ah nak lolu war nga ñaan yalla shifaaw shifaaw bobu na xamna ñaan nga ko yalla waye man tammi ma ngi la kay ñaanal yalla kep ko faj rek faal biram yalla na wër inshallah taala inshallah inshallah sant na la bu sant na yalla parce que li yalla rek moom ko mëna may bima yalla bolé ak yow nga nek nit ku baax yu tammi nit ku sep nit ku ma sha allah sama xalaxin nit ku jang nit ku am xam-xam nit ku bari xam-xam ma xam macha allah samal xaalaxi na te bëri wilaaye wallahi la azim yàgg naa tase ak ay nit de waaye nag guleet ma tase ak ku ni yow macha allah samal xaalaxi na wallahi la di sàkku ci yow tamit ñaam ci xam-xam bi la yàlla jox te xam naa ne yow macha allah yàlla jox na la loolu lu ma leer la am na la yàlla jox te yaa ngi koy jëfee tam jëfin bu rafet macha allah samal xaalaxi na loolu aussi maa ngi ñaan yal na yàlla yokk ko jërëjëf yal na yàlla kontaan ci yow yal na yàlla bégal la yàlla ku mu bégal nga bég yal na yàlla bégal la fal Biram